asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu suivre ci Equivox TV maa ngi leen di ziare ah di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen tey nag ñu ngi ci ah mardi 26 octobre 2021 la may def mooy bàyyi leen ngeen dem déglu te seetaan yëglikaay lu ñu ñëwoon ñu dikkaat ak yen si plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa mardi 26 octobre 2021 dañuy ñëw ak ci yëglikaay sunu lamb lañ koy dooreeti yëglikaay bi tey mu njëkk moom la ca xëy fes bokk na ci Siteu mi ngeen xam tarkindaa bu jàmm gën ba ak Papa Sow mu Parcelles Assainies mu mel ni ki nag yëglikaay ba nee na ginnaaw ñaari at yoo xam ne ñu ngay xaar combat ba maanaam combat ba ñu reporté ko lu toll si ñaari yoon léegi nag daa mel ni mbir yi mu ngay bëgga leer fi mu nekk nii daal le cinq décembre ku yebu xaar ca la nag arbitre ñaari mbër jàkkaarloo bëre yëglikaay bi moo tax nag mu tuddee ko premier goro choc de l'année de l'année loolu la yëglikaay bi di sunu làmb tey ñëw wax nu ko mel ni kii daal boo bëggee dégg dëgg daal at mu njëkk wala boog saison ren bi moom choc bu mag bi ci njëkk a am benn lay doon mooy Siteu Papa Sow mooy njëkk am yëglikaay bi waa xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu mel ni ki nag am na soog boo am xam ne amoon na bërki démb doxoon ci diggante Fils de Balla ak général Malika ci sunu làmb ngar daajoo yëglikaay ba di fa wax fa mu jaar ba daan ka nga xam ne moo di général Malick nee na nag jaarukaay ba soriwut wutiwu ko fa sore ka nga xam ne daal mooy kilifaam mu tuddee ko boppam muy Balla gay numéro 2 moo ko jox kelewu combat ba loolu mooy gis-gisu ko nga xam ne wala boog mooy mooy waxi ka nga xam ne moo di fis de Balla yemu ca nee na tamit ba mu ca jógee ba tey ñu ngi koy proposé ay affaire maanaam ay adversaire yëgle kaay ba moo xëy ñëw dina wax lu mel ne ki noonu ñeneen ñoo xam ne moom ay adversaire lañ yoo xam ne ñu ngi ci yëgle kaay bi ci xëtam mu njëkk dimanche ji nu jëm ca Thiès ñu fas yéenee jàkkaarloo bëre muy Alaaji Gaynde ak ka nga xam ne nii moom moo di Ousmane Gandigal Alaaji Gaynde nag moom boo bëggee dégg-dégg nee na ki nga xam ne nii daal moom moo di Ousmane Gandigal Alaaji Gaynde nee na ko ay risques yu nganda ngan nga jël sama diggante ak yow te boo sàgganee nag maanaam bii yoon fi ngay jaar gin làmb ji maanaam doo jaar ci bunt bu mag bi bu ndaw ndaw ba fenêtre daal wala prox ndoll ca ngay jaar génn làmb ja te loolu buy am maa la koy teg bu dimanche yëglikaay baa xëy ñëw dinu wax lu mel ni noonu ba tey bu nu continuer ci yëglikaay boobu nga xam ne moo di sunu làmb alaaji ngañ jaañ bu fa nga xam ne moo di immédiat moom mu nga xëy ñëw ci kaw bombardier ba nga xam ne moo ko dal bërki dem ne na bombardier daal mënu ko ne rek ci lu mel ni noonu maanaam parce daa jàpp ne kon na mu entamé combat am daal moo tax mu jàpp ne daal kon la ko dal moom pour mu ñàkkoon koo dal doon na jafe lool lool lool lool leneen loo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci koo xam ne mbir moo xam ne jafe woon na ko lool muy Toubacouta di mbër moo xam ne mu ngi ci lutte simple bi di ci wane boppam waaye doon na gañe ci àll bi waaye ndakaaru moom pour mu gañe woon fi jafe-jafe la juróom benn yoo xam ne mënta gañe benn tournoi dakaar mel ni ki nag bërki démb daal loola daa mel ni mujj na jeex gañe na ab tournoi fi nga xam ne moo di ci dakaar yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy ñëw tey di wax lu mel ni ki noonu buñ fa jógee record moom dafa ñëw tey te ñett ñoo xam ne ni daal ay figure lan yu mag a mag ca làmb yëglikaay ba xëy na tey ñëw dina wax lu mel ni ki noonu moo xam Gaston Mbengue la Alioune Sarr Mohamed Ndaw Tyson keneen koo xam ne ni moom mas na bëre ak Tyson moom muy Bombardier yëglikaay ba daal moo xëy ñëw dikkati ci ay mbiram ak Gaston Mbengue record yi xam ne daal Gaston Mbengue moom revanche ba Bombardier di wax digganteem ak Maris Gaston ne na ko muy tey muy suba lool moom du am te nun waa Sénégal sax dun la seetaan ngay bëri ji waat ak Maris ndax nag Gaston Mbengue daa jàpp ne avion ak lépp lay xëcc moom gasone na ko du fi amewaat bàyyil maris te ñëw ci làmb ji bëre moo gën a wóor mu mel ni ki nag bu nu delloo rek fa nga xam ne moo di sunu làmb moom daal xëy na ñu toppal maris moomu andil ñu palmarèsu maris mel ni ki nag maris moom mu ngi ci treize victoire sept nil benn defet daal la masa am mu mel ni ki nag pays ba mu dëkk moo di Pologne ay atam toll ci quarante quatre ans yëglikaay baa ñëw dina ko wax taayam un mètre quatre-vingt-six la poids ba di cent quarante cinq kilos poitrine ba kaay ba na cent quarante huit centimètres la domino ba boo xoolee yëglikaay ba nee na boog maanaam daal quatre-vingt-douze centimètres baraaya cinquante six centimètres mel ni ki daal kooku boo bëggee dégg-dëgg yëglikaay ba moo xëy ñëw toppool ñu ko wàllum xam-xam tamit daa mel ni am na ko waykat sax doon na ko ba formé la nga xam ne moo di groupe bu way yëglikaay bi ne tamit maanaam mas naa dugg prison entre 2001 ba 2002 def na 19 mois ci kaso bi kooku daal moom la Bombardier doon jàkkaarlool mu mel ne kon daal la Gaston Mbengue wax rek bomb daal bàyyi ñu rek ka nga xam ne moo di Maris ndax nag man balde kuy xëcc avion la ma gis Maris di ko def ci ay xeeti yëngu-yëngu moom ku doya doy waar la te nag nu continuer ci sunu làmb ji ndax nag ah day doy waar te nag sunu mbër yi moom dañoo bëgg ñuy bëre. jërë jëf kon dégg ngeen yëglikaay yi tey loolu la ñu indil ah ci talaata ji ah moo xam sunu làmb la moo xam record la ci wàllum làmb ji ah muy lu am am solo ah ginnaaw bu ma leen ñaanalee jàmm rek te saako ko ci yéen yéen ñi nga xam ne ñuy seetaan di ñu sago di ñu bàyyi xel amuñu seen fay yal na leen yàlla fay barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah euh, tey nag bu ñëwee ci xët mu njëgg euh, yëglikaay bi di sunu làmb gis ngeen tey xëtam mu njëkk lim ñu xëy wan ñu ko maanaam aw foto wu ne dàng fës lool dox ci diggante kan Siteu Tarkinda bu jàmm gën Papa soow la piment comme ni ñu koy waxee di doomu Parcelles Assainies ñaar ñii nag ñoom ñoo war a bëree ah yëglikaay bi nag nee na combat bi ginnaaw ay at yoo xam ne nii daal boo bëggee dégg-dëgg moom ñu ngi koy reporté lu toll ci euh, deux ans ngi nii combat bi tax ñu koo bëri reporté nañ ko ñaari yoon mu mel ni ki nag fi mu nekk nii a ah, mbir yaa ngi bëgga a leer ndax nag yëglikaay bi neena boo bëggee dégg-dëgg la cinq décembre incha allah rabi yàlla nañ ko fekkee tal ko ci lañ fas yéenee bëre ci la at bi doy soufflé ñaari mbëri ñaari mbëri moo tax yëglikaay bi jàpp ne premier gros choc de waaw waaw de l'année waaw noonu la ko yëglikaay bi de de la saison. waaw premier gros choc de la saison noonu la ko suñu làmb woowee tey effectivement yaakaar naa ne mooy nekk tey choc bu gën a rëy bu njëkk am ren ci saison bi buñ ca jógee nag yeneen combat yi doog a ñëw yaa ngi dégg waaye xam na daal combat boo xam ne ñaari mbër yi bëgg nañ ko yàgg nañ ko bëgg yàgg nañ ko bëgg a bëre promoteur bi tamit vraiment ah ba mën naa ne sonn na ci mais nag li am solo mooy bërki dem rek dëkk naa ko micro ndeysaan Pa Abdou Fall ci euh, stadium Iba Mar ah mais moom nangu na li li li li am parce que xam na ne sport la xam na ne yàlla tamit mooy dogal te maanaam xam gi ne yàlla mooy dogal mooy bu sañoon ba tey bëri nañ mais nag bon loolu mooy li am kon daal nañ ci bàyyi xel incha allah rabbi le 5 décembre xam naa daal dina metti waaw moom nag Pa Abdou Fall nee na ah euh, maanaam place buy des du bëgguñu ko faa gis maanaam maa yëpp daa wara a fees te incha allah rabbi noonu lay demee ndax xam naa ne parcelle ak Papa Sow. premier sorteem ci écrim bu bu bees bu Jàmbaar Wrestling Academy ah, muy combat bu dangereux si ñoom ñaar papa joge ci defet diggante ak Ama sañ ci bu bees Siteu jógee ci defet digganteem ak guy gi war génnaat beneen génn ah non du yomb Pape Abdou Fall indi nga combat bu rëy combat jànq bu doy doy waar leneen loo xam ne euh, euh, beneen combat boo xam ne nii maanaam soog la woon bëri ki démb waaw euh, muy soog boo xam ne soog ay espoir la woon mu doxoon ci diggante Fils de Balla ak général Malick gis ngeen noonu Fils de Balla ah mu ngi noonu ngeen gis ko muy expliquer par rapport ak combat bi ak li ci am wax na li ci am ak kele bi nga xam ne moom la daane Général Malika nana kele bi nag wutiwu ko fu sori maanaam kinul école am ka ko jox mooy idolam bi mu tudd duppee boppam muy bala gay 2 waaw nee na moo ko jox kele bi mu daane Général Malika ma ne ko parce que tamit c'est normal parce que yaakaar naa école de lutte Balla Gaye moom wax dëgg yàlla euh, kaay la ci école de lutte yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal parce que li tax mooy bokk na ci mooy école de su ma jumulee bu dégg roi loolu la yàlla dogal ay xale ne fa moom Fils de Balla mi mu mu bokk ci xale yooyu tey yàlla dogal ah defe naa ne fii mu toll ni tey ci làmb mu ngi wane boppam su la Balla joxee ko clé la ko waral a def ndax koo xool safoo ko ngeen bokku dëkk nga duppee ko sa bopp ñëw ne ci keppaaram di fa di contact ak moom di bëre ak moom ah c'est normal kon defe naa ne naxu la parce que nag la nga bëree defe naa ne teg nga ko ci yoon boo xoolee seen bëri moo général Malika dama naan général Malika dafa mel ni bi ñu dawee jàppante moom ci xeex la misé te jàpp te jàpp te jàpp jàpp goofu dëgër te sa adversaire boo xoolee moo la gën a xaw a gën a féti jamono boobu moo tax bi mu misé ci xeex bi nag kii di Fils de Balla fàq ko rek mu wàcc mu daw wër ko ndomb waaw bala ca am am ca mu daan ko loolu moo lay won nekkoon des fois xeex am na fu ñu ko war a am na foo xam ne ci biir bëri su fa bëree tolloo pour man soxla wu lañ fa soxla mooy seet sa jàpp ba pare waaw parce que loolu tamit mooy li nga xam ne nii mais nag boo waree ñàkk moom ah mooy loolu waaw da ngay nekk sax cuune mën naa ne ci moment bi nga war a ñàkkee loolu mooy làmb bu ñu continuer ba tey beneen làmb boo xam ne war na am fi nga xam ne ni moom mooy ca Thiès ci dimanche ji nu jëm boobu itam mën nañ ko tudde combat bu mag a mag la Alaaji Gaynde ngeen xam ko ah moom moo bëgg a génne Ousmane Gandigal daal ci làmb ji boo tax na ne na ko le 31 octobre moom gis ngeen leen ñoom ñaar na ko boo sàgganee ci porte bu ndaw bi ngay jaar génn fa la lay génnee ji ah xam naa du yomb si di jaxate moo fa ndax Ousmane Gandigal nekk na mbër moo xam ne yàgg naa dil ay booy jafe ci làmb de loolu moom lu leer la parce que mën naa xeex mën naa bëri ti dëgër na Alaaji Gaye nag xale la boo xam ne nii dafa bëgg wane boppam te te bés bii ci la ko bëgg a defee kon ñu yoon yàgg rek bàyyi ba samedi Euh, ba dimanche boog dimanche le 31 octobre incha allah war nañ ko fekkee te tal ñu xool ñoom ñaar fan la ñuy mujj diggante Alaaji Gaynde ak Ousmane Gandigal waaw ñu ciy nuyu suñu tonton si di jaxate di ku baax di ku ñu sopp vraiment waaw di tout le temps li ñuy def waaw Père Sidi ñu ngi lay bégge bu baax a baax leneen loo xam tamit amoon na fi ba jàll muy Bombardier ak li ko dal bërki démb fa nga xam ne moo di ca Pologne Alaaji Ngagne Diagne ñëw di ci wax parce que moom li mu gis mooy jàpp na ne Bombardier Bombardier mënu ko na bañ a jël waaw loolu la gis effectivement parce que ni mu demee boo ni demee ci sa adversaire te moom boobu mu ngi lay contour di la xool pour mu dóor la dafay yomb loolu bokk na ci li gën a yombal Maris cross droit bi mu dóor bombardier mu kawote loolu nag muy sport ah defaru jiwaat rek comme ni ñu koy waxee euh, premier gala bi nga xam ne jël na ko fii ci Dakar depuis juróom-benn mënu fee gagné mënu fee gagné gala muy Toubacouta loolu nag daa ni jeex na bari dem gagné na fi gala kon Toubacouta félicitation lañ lay wax ah la wax ne loolu mooy li olof di wax rek bu yoon jeexul si waaxu bu yoon jeexul waaxu si jeex kon liggéey rek moo wóor daal liggéey rek moo wóor. waaw bu ñu continuer ba tey ah, ah euh, dem record lañ fay fekk mooy ñoo xam ne yëglikaay bi daa jàpp ñoo xam ne ay ñu ay ay nit la ñu mag ci làmb moo xam euh, Gaston Mbengue la moo xam Alioune Sarr la ak Mohamed Ndao Tyson loolu lépp ak Mohamed Ndao Tyson ñoom defe naa tamit vraiment ay icône làmb lañ ci ku ci ne ci côté ba nga féete di ca doxale maa ngi dégg loolu mooy li nga xam ne tey moo fi ñëwoon ci yëglikaay yi muy sunu làmb mu di record di kontaan ci ñi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre ñëpp à travers Equivox TV di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di wax que ne Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm hmm? di wax ne Jib Sène waaw ci ba nañu ko bàyyi xel anniversaire am le 5 décembre incha allahu rabbi ah, ah, astafurlah maanaam décembre sax le 5 novembre incha allahu rabbi d'ici quelques jour la waaw waaw mooy borom anniversaire bi happy birthday to waaw moom faral na di ma sonal solal ma ku mel ne Aliou Sall ah mais maa ngi bëggee ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm Adama Ndiaye Italie maa ngi koy ñaanal jàmm di nuyu ñoom Ndongo faal ñoom ñëpp basoka tamit le grand champion maa ngi koy bëggee depuis États-Unis d'Amérique di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi suivre Balde di joxe dig daje gars yi suba incha allah rabbi ci beneen CDA.